waltaqini shirka ma'a nifaaqi wa habliya sidqa mahal wifaaqi wa basiril huura bisil hurufi wa xayra xunna min sawil mahrufi mbokk yi démb ñu daane woon ci saydina muhammadin wal ali wa sahbihi fil haali wal maali tey ñu bëgg koo sosoog yéen ci waltaqini shirka mahal nifaaqi wa habliya sidqa mahal wifaaqi sëriñ bi ba léegi rek mu ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala di ko ñaan ay may waaye di ko ñaan itam mu fegal ko ñaar rek lay ñaan lii da koy ñaan yàlla may ko ko lii da koy ñaan yàlla fegal ko ko kon mel na xasida gi daanaka li ci des dañ koy dawal rek par ndànk-ndànk ngir xam nga li ci des daanaka li ci ëpp julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ak di ñaan ak di nett léeg-léeg xéwal yi ko boroom defal ak di julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne yow suñu borom wal taq nii maa ngi lay ñaan nga fegal ma asirka bokkaale nag ma fegal bokkaale bokkaale sëñ Tuubaa nee na mosut koo def yàlla moo ko fegal bokkaale ci boppam nee na mosut koo def bara anil illahu min sirkin wa min kulli nafaaxin wa saadati damin ca wakaana xan nee na yàlla seetal na ma ci gépp bokkaale waaye ak gépp naafiq ba noppi nag wa saadati damin nee na garantal ma sama texe nga xam ne nee na sunu borom daf maa garantal sama texe man Seexul Xadim ak képp koo xam ne aju na ci man moo tax am na fu mu wax ne sax taabat nufoosu man taallaqoo biya dunya wa uxra saaka fatlu rabbiya nee na teey na ay waaye war naay teey teey na teey na bakkanu ki nga xam ne dafa aju ci man teey na adduna ak alaxira ndax buy roogi di tàqal koo jëmam ji rek euh, sunu borom tabaaraka wa taala moo koy rocc ndànk sëriñ tubaa aw ko nag mu dem ci aljinaya lii na yàlla nañ ci bokk moo tax mu ne teey na bakkanam ki nga xam ne aju na ci man adduna ak alaxira loolu nag mu bu leen yéem saaka fatlu rabbi yàlla bu leen fàtt ne walaahu yaxtasu bi rahmatihi man yasa walaahu soo fa leen asimi yàlla day jagleel bidéefam de te yàlla moom moo ko jagleel loolu moo jagleel képp koo xam ne aju na ci man nee na bakkanam teey na adduna ak alaxira bu roogi di teexlu ko jëmam ji rek dem na ci aljana ya mu ne wal taq ni maa ngi la ñaan nga fegal ma asirka bokkaale ma an nifaaq te ànd koog naafiq kon gis nga dama ko waxoon bara anil ilaahu min sirkin wa min kulli nifaaq ñaar yëpp nee na yàlla daf ma caa setal waaw daf ma caa dëñal ba ma set wicc nga xam ne mosuma koo jiblu mosuma koo def moo tax mu ne wal taq ni fegal nga ma asirka bokkaale ma an nifaaq te ànd koog naafiq naafiq moom jàngeen ko surtout munaafiqoona bañ yegg ci tey suro asir ba mooy borom kàddu yu rafet yooyu ak seen làmmiñ yu rafet yooyu ak seen xam-xam bañ amee noonu waaye seen xol ya ñoo baaxul maanaam pas-pasu xol lañ amul pas-pasu xol dara lañ ci am wi saara aytum tux ji bu ka su borom nee na boo leen gisee danañ la yéem ak saamum seen jëmm ya waaye wa in yëqooloo bu ñu waxee ma ba nga déglu ba xawlim seen wax dañ wax ka annum xusubun musannadatun dafa mel ne ab bant boo xam ne dañ koy wéet rek am ngelaw lu ñëw rek wupp ko mu daanu noonu rek la ñàkkee solo seen wax dara amut ci solo moo tax mu ne maa ngi la ñaan nga fegal ma bokkaale ànd koog naafiq na nga fegal naafiq waaye waxab maa ngi la ñaan nga may lii ñeen ma asitku ak dëggu maa wi fekk ànd koog dëppoo ko mbokk yi xam ngeen ni sirku ak siddo waaye nifaqu ak wifaq ñu ko sëñ Tuubaa rabbee ñaan na yàlla fegal ko bokkaale waaye nag ak naafiq waaye ñaan na yàlla may ko dëggu ndax naafiq doonu ku dëggu ku dëggu rek nit koo gis mu dëggu rek du naafiq ndax naafiq mëntu dëggu naafiq mboole lum digg diggee nit ki maanaam du ko def lu mu dëlee nit ki itam du ko def lépp lum kulrante nit ki itam da koy wuruj da koy wor nga xam ne kon naafeq jukkoom yëpp jukko yu jikko yi gën a bon moo nekk ci bis xolam lu mu wax ak nit ki rek maanaam bu fekkoon ne dana ci misaal euh, suba ñi dajee barab sàngam doo ko gis suba waaw bu ngeen kulrante dara moo xam ci wàllu alal lu mun a doon rek mu wor la maanaam na ko séntu woon na gën a bon fa mu gën a ñaawee la noonu foofu lay jaar moom naafeq moo tax ne maa ngi la nga fegal ma bokkaale ànd koog naa fexe maa ngi la nga may ma ak dëggu ak dëggu waab maa ngi nga may lii ñeen ak dëggu waaye nag maa luy feex ànd koog dëppoo ga nga xam ne sama lépp day dëppoog li yàlla bëgg day dëppoog euh, jëmmi yonent bi alayhi salaatu salaam maa luy feex ànd koog dëppoo ga mu ne yow suñu borom wa basiri maa ngi lay ñaan nga bégal alxuura jigéenu xóorul ayn yi na leen bégal bisil xuruuf ci yii xaraf te muy xasidi gi wa xayrahuna ak ñu dul ñoom sax muy jong ba yooyee ci aljana min sawil mahrofi ci ñi nga xam ne ñooy borom ak yiw ñi mu ne yow yàlla maa ngi la ñaan nga bégal jigéenu xuruf ay ni ci xaraf yi te muy xasida gi xasida gi la ci nam ndax xuruf ci turu xasida gi la ndax xasida gi dafa bëri moo tax maa ngi la nga bégal jong ma yooyu nga xam ne mooy xuurun xeenun ka am saali lux lu il makkunuun nee na jong la yoo xam ne dañoo rëy bët ndax bokk na ci taarub jigéen taamu nañ ko ci mooy rëy ay bët ndax jigéenu xuruf ay nii seen bër yi dañoo yaatu seen bëri dañuy yaatu laa fiyaa xol wala walaa hum xanaa yunsufoona wa xendahum xaasiraatu tarfiinun mu ne ka annahuna baydun maknun dañoo mel ni nen dañoo mel ni ay nen yu weex dañoo mel ni dañoo weex tàll la ca war a weex weex la ca war a ñuul ñuul waaye bokkut ak comme bëti nit ñi léegi nga gis bëti xonq cur jaxsantu ñuul kukk jigéen aljina ak la war weex ci seen bët ya moo ca weex la ca war ñuul ñuul ca waaye du ci jaxsantu mukk lu ci bokkut ci seen bët yi mu ne maa ngi lay ñaan nga bégal nag jigéenu xuur laay ci jëm boppam ci xasida gi di ma fàttewul bisiri waaye nag ak ñu dul ñoom sax si ñi nga xam ne borom ak yiw xam ne borom yiw la rek na nga ko bégal ci xasida gi ne mooy ma fàttewul bisiri nga xam ne képp koo xam ne euh, nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa taalif ma fàttewul bisiri waaye jigéenu xuur laay ñoom it dañ cee bég ñoom ñoo cee njëkk bég gannaaw ba nga xam ne nit yàlla ñoom it bég nañ ci moo tax ne woo maa ngi lay ñaan nga bégal al wóoru jong ma yi nga xam ne ñooy xóorul ayn yi bisil xuruf ci xaraf wa xayru na ak ñu dul ñoom sax min sawil maxaab ci ñi nga xam ne ñooy borom ak yiw ñi mu ne wasalli yaa akramu bisalaami ala nabi musibil malaami mu ne wasalli maa ngi la ñaan nga doolu xéwal yàlla yaa akramu yow mi nga xam ne yaa aji tedd xéwal goo xam ne bisalaami dafay lëkkaloo ak mucc ala nabi yàlla nañ ko sotti ci ki nga xam ne mooy ku ñu solooke al musibi ki nga xam ne mooy mooy ki nga xam ne mooy ki dàq malaami sama yeddaange mooy ki dàq sama yeddaange ndax man mosuñ maa yedd mosumaa dem ci lu ñuy yeddaatee yonent bi moo ko dindi ci man kon amutoon jot ndax koo xam ne guddee bëccëg yam ngoon yëpp yaa ngi ci yonent bi di tàgg rek kooku doo am yeddaange moo tax mu ne àla nabi xéewal googu ak mucc googu yow yàlla mi nga xam ne aji tedd na nga ko sotti ci kaw ki nga xam ne mooy dañ koo dii ba nëpp yónni ko muy àla nabi mooy ku ñu solooki al musibi ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy ki dàq almalaami sama yeddeel man sëñ Tuubaa awma ak yeddeel kenn mu fekk fenn di ma yedd mu ne sayyidnaa kooku mooy sunu sang Muhammadin turo mooy Muhammad wala ali salaatu kooku moo ki waa këram wa sax bi ak ay saabaam fii la xaali fii ci àdduna wal maali ak ëllëg yawmal xiyaam mu ne wasarif li xayri kulla durin lii naxa xablal wusuuli lii waxut lil min naxa mu ne yow suñu borom wasarif maa ngi lay ñaan nga wëlbati li xayri mu jëm ci kudut man kulla durin wépp lor naxaa jubloon na lii ci man maanaam wépp lor woo xam ne jubloon ci man rek léegi na ko wëlbati au lieu que mu yegg ci man waaye na nga ko wëlbati mu dem geneen wàll gu bokk moo tax ma ne wasarif maa ngi lay ñaan nga wëlbati mu jëm ci kudut man kulla durin bépp lor goo xam ne naxaa jublu woon na lii ci man bépp lor gu ma jublu woon rek léegi na nga ko wëlbati mooy xaj ko ba noppi tabaarikal la mu jëm ci geneen wàll ko bokkut ak sama wàll nag moo tax mu ne xablal wusooli njëkk mu yegg ci man gis nga dëgëral na wax ji sax mu ne xablal wusooli na nga ko wëlbati lor googu di jëm ci man bala moo yegg ci man na nga ko wëlbati mu jëm ci kudul man waaye nag xablal wusooli njëkk mu yegg ci njëkk mu yegg ci bala mu yegg ci ndax bu yegg see man na maa gaañ kon bala mu yegg see rek na nga ko xaj mu dëpp nga xam ne du jotee moom dara wa damiran kulla ahdain tudru bina xablal wusuli lanaa yalaahu yalaahu comme ni ma koy xoon ca siddi yi xablal wusuli njëkk mu yegg ci lii di ma ñeel waaye waqut maa ngi la ñaan nga lii jox ma alminnaha xéewal yi muy may yi alminnaha mooy tekki may rek ay may mu ne na nga ko wommat nag jox ma ko gannaaw ba nga xam ne wëlbati nga bépp lor mu jëm ci ku dul man lor goo xam ne jublu woon waaye nag na nga ko wëlbati mu jëm ci ku dul man njëkk mu yegg ci man waaye nag maa ngi la ñaan nga wommatal ma li nga xam ne mooy xéewal yi te may mu ne wasalli bi taslimi yàlla tiiku alalati tatnoo luxul xutóofu mu ne wasalli maa ngi lay ñaan nga doolu xéwal bi taslimin ko ànd ko mucc yàlla tiifu yàlla mi nga xam ne yaay aji ñeewantu ji maa ngi lay ñaan nga doolu xéwal gu ànd ko mucc yow mi nga xam ne yaay la tiif na nga ko sotti alalati ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne tatnoo mooy jege na loxoo ñeel ko mooy dana jege rek loxoo ñeel ko al xutóofu meññiti aljana ya meññiti aljana ya al xutóofu mu ngi wekk ci baata xattafa mooy mu ngi mel ne garab goo xam ne dafa ñor xom bu ñi di ko witti dañ ko wittee ne moom la ñuy tuddee euh, jamxo bi mooy xuttoofu alxuraan da ngi wax ne meññiti aljana yi dañuy suufee dañoo jege am na ci yoo xam ne euh, ci aljana yi dañoo bëri ay xiiwal ba nga xam ne am na ci xiiwal yoo xam ne toll nañ ni seen sëriwaay diggante asamaan ak suuf ñu laaj Ibn Abbas na ko waaw xiiwal yooyu moom ni ñuy def ba jot ci mu ne da ngay bës ab bouton rek mu wàcc nga lekk ba suuf jëfandikoo bësaat mu yéegaat noonu ngay def saa yoo bëggee rek mboolem lekk goo mën a bëgg rek ci xeeti yi nga xamoon ci ëdduna yi yëpp am na foofu waaye seen takk ñol bokk ndax euh, wa oto bi mutasaabi an la yàlla wax képp koo xam ne dem na aljana maanaam yëng daan gis ci àdduna ko fay gis foofu moom lañ lay jox ndax nga baaxoo xam ne ah lii kat gisoon naa ko waaye nag seen càkk yi dañ du bokk waaye lii ngay lekk fii ci àdduna ay pomme banana mandari yëpp am na foofu ci aljana waaye càkk yi ñoo bokk waaw xaal oto euh, euh, bi mutasaabi an bun lu mu mu taaratum bu mu fee xaalidoona kon meññi di am nañ foofu alquran nee na xutuufuha euh, daaniyatun kulloo wasrabu anni an bi ma aslawtu fil yaamil xadiya xutuufuha mooy meññite aljana yi daaniyatun dañuy suufe dañoo jege nga xam ne boo toogee lekk boo tëddee lekk boo taxawee lekk nu la neex rek noo bëgg a rek ñoom ñooy daw ñëw di la fekk ci nga di leen jëfandikoo moo tax mu ne yonent noonu la mel moo tax dafa bokk ci turam yi moo tax wasal yàlla nga dool ko bi taslim ko ko mucc yàlla yàlla tifi yow mi nga xam ne yaay aji ñeewantu ji xaalal la ci yonent bi nga xam ne tat noo muy dana jege loxo ñeel ko alxutufu meññit ya mooy bu yomal xam meññit yëpp dañ koy jege te xam ne tabaarkalla yonent bi alayhi salaatu salaam mooy mbooleem ñi nga xam ne mooy kii njëkk tàbbi aljana moom yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne meññit yi tey boo demee euh, bu ci ne rek dañ ko bind tur yonent bi alayhi salaatu salaam muy laa ko alxutufu meññit ya mooy dañ koy jege bu yomal xamee sayyidina kooku mooy sunu sang waaye na salaatu googu wala ali moo ki waa këram sax bi ak ay saabam fil haali fii ci duna wal ma ali ak ëllëg yowmal xiyaam mu ne waliya fiika wa fiihi ma bihi yaxbitu nii kullu saidin naa bihi mu ne yow yàlla waxab maa ngi ñaan nga may lii ñeel ma fiika ci yow waaye wa fiihi ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa maa loo xam ne loo may may maa mooy loo xam ne yaxbitu nii dana ma ci ñee bihi ca loolee nga may ma kullu saidin gépp aji texe joo xam na naa naa maanaam baat bi ca dëgg-dëgg moo doon naa la bii naa la waaye yooyu tax mu dagg laam bi moo tax mu ne kullu saidin bépp aji texe xam ne naa am na bii ci moom mu ne yow yàlla maa ngi la ñaan nga may ma ci yow waaye may ma ci yonent bi loo xam ne euh, dana ma ci ñëwee képp ku texe rek képp ku texe donte am nga may yu niroog sama mbos sama bos sax donte am nga ko maanaam may yi ma yàlla jox moom kooku moom alaa kulli dag ma ci ñee te texe nga ak loo texe texe ak loo yegg-yegg ci dayo texe ak loo yémi yémi ak loo tabi tabi aljana ak yomal xiyaam looy ñàkk-ñàkk jàq ak looy ñàkk-ñàkk tiit noonu nga koy toppee ak ku mën doon képp ko texe rek may yi ma yàlla jox moom kooku moom donte texe nga sax moom danga ma ci ñee ndax yomal xiyaam dafay am ñeente Sëñ Tuubaa kon ñaan na boroom na ko maa ngi ne ñaan nga may ma ci yow ak ci yónente bi nga xam ne da ko ñaan ci jëmmam ji moom yàlla mu may ko loo xam ne da koy ñëwee waaye ñaan ko ci jëm yonent bi mu may ko loo xam ne da koy ñëwee képp koo xam ne texe na mu ne waxab maa ngi nga may lii ñaan ma yow fii ka ci yow waaye nag boo fii ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo maa may maa mooy loo xam ne mooy ay xéewal rek la ciy jublu maa loo xam ne yax bitu nii dana ma dana ma ci ñëwee bii ca loolee nga may ma kullu saidin gépp aji texe joo xam ne naa am na bii ci moom euh, képp koo xam ne am na may yu demee noonu sax wala yu nu toll noonu kooku moom may yi ma yàlla jox moom kooku ala kulli al daf ma ci ñee mu ne wasalli yaa latif wal tusallimi ala allati yanxu ridaahu qalami mu ne wasalli yàlla nga dolli yaa latif yow yàlla mi nga xam ne yaay aji ñeewantu ji wal tuslimi ta nga dolli góolu ala allati ci bi nga xam ne yanxu dana jublu qalami sama xalima gi qalami sama xalima gi riddaahu ngërëmum mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga yow mi nga xam ne yaay aji ñeewantu ji xéwal goo xam ne dafay lënkaloo ak mucc nan ko sott ci bi nga xam ne sama xalima gi de li muy bind yëpp mooy ngërëmam maanaam loo xam ne gërëm na ci lu koy bégloo lu koy kontaanloo rek sama xalima gi jamono ji nekk moom rek moo tax ma ne wasali yàlla nga doolu xewal yàlla tif yow yàlla mi nga xam ne yaa aji ñeewantu ji wala tusalimi gu ànd koog mucc alal la ci yonent bi nga xam ne yanu koo dana jublu li muy bind yëpp yëpp yëpp ngërëmal yonent bi la lu koy bégloo lu koy kontaanloo lu koy sawarloo mu ne sayid naa kooku mooy son sangi Muhammadin turam mooy Muhammad waaye nag salaatu googu nga ko sotti yonent bi nee ne bi leen tiyaa bu mu am yemukaay bi leen tiyaa ci lu dul ak yemukaay waaye waxut yow yàlla maa ngi la ñaan nga womat loo ñeel yonent bi alayhi salaatu salaam fii his bi ànd ko kuréelam ba ta muy saaba yi maa lépp loo xam ne lu mu mën di doon rek yustaha loo xam ne bëggis nañ ko nang leen ko womatal jox leen ko yonent bi ak kuréelam ba ta muy saaba yi mboolem luñ bëgg rek luñ mën a faytu rek luñ mën bëgg rek foofee ci aljane yi luñ mën a bëgg ak fuñ mën a nekk rek nang leen ko womatal jox leen ko waaye nag loolee nang ko defee ci ñaan gi ma ñaan la moo tax mu ne waxut maa ngi lay ñaan gu wommat loxoo ñeel yonent bi mooy jëmee ci yonent bi waaye nag fii bi ànd ko kuréelam ba te muy saaba yi maa lu manti doon rek maa lépp loo xam ne rek yustaha bëggees nañ ko luñ bëgg rek maanaam wommat ko bu noppi jox leen ko waaye na ngir sama ñaan gi yow suñu borom